saa su nekkee rek li xew ci réew mi li xew ci réew mi nag ku nekk xam na ko fi mu toll nii moom yaakaar naa ne xel yeeg xalaat yeeg rek gone yeeg ñëpp maanaam ñëpp rek kenn ku ci nekk yaa ngi déglu ay information euh, yoo xam dafay tukkee ci ñi nga xam tey dañoo war a génne ay atte wax maanaam ñi nga xam dañoo war a jàll pour 2024 voilà ñëpp nag xale yi ñëpp foo dem voilà gaa yaa ngi nekk ci groupe whatsapp yi di déglu information yi jàll gaa yaa ngi ci internet bi ci réseaux sociaux yi di déglu voilà gaa yaa ngi maanaam daal kenn ku ci nekk yaa ngi xool fooy jëlee li nga xam ne nii rek voilà da nga ko mën a dégg voilà ñu ci ëpp nag daanaka mën naa ne booy xool kandidaa yi si des yëpp daanaka itteelu leen maanaam daal candidat bi nga xam ne ni moo leen itteel mooy Ousmane Sonko bu bari loolu la ñu wax voilà candidat boobu daal lañu bëgg dégg voilà ba dina jàll wala du jàll voilà mu jàll nag moo moom la ñëpp bëgg parce que Sénégal yaakaar naa ne comme ñu daan wax rek yàgg nañ koy wax depuis ba nga xamee ni xale yaay commencé di yeewu ci politique boobu ba léegi voilà xam ngeen ni euh, ñu ngi koy wax voilà kon yaakaar naa ni euh, gone yi moom saa su nekk euh, ñu ngi topp information lu jëm ci politiciens yi voilà parce que politiciens yi dañoo nekk ak ñun ci réew mi ñu am xalaat am gis-gis nee na ñu jàng ñoom am nañ xam-xam waaye ëpp ñu am njàng ñu topp seen ginnaaw ëpp ñu xam-xam ñu topp seen ginnaaw loolu lu ma leer nag parce que lii problème bi moo di dëgg la yàlla moom faw muy sàkk ay njiit voilà ñoo xam ne force fala force da di jiitu waaye du seen gën a muus de du seen gën a yeewu de du seen jàq jàng de du seen bari xam-xam de déedéet yàlla mooy dogal loolu waaye yàlla bu dogalee loolu ci yow mi nga xam da ngaa jiite yow da ngay nungu ñi topp sa ginnaaw xam ni ëppoo leen xam-xam voilà loolu la ñuy wax moo tax boo gisee ñu ëpp xam-xam ci àdduna bi te nungu chaque jour saa su nekk dañuy am ay conseils yoo xam ne nii voilà conseils yoo xam ne nii luñ leen wax rek dañ koy def waaye conseils yooyu tamit day nekk ay conseils yoo xam ne nii conseils yu bari xam-xam la ñu doon bu ñu waxee bakkan bu ñu waxee bëgg alalu àdduna bu ñu waxee déedéet lépp rek dañ koy teg ko ci xam-xam ba ku ñëw mënul dindi li nga xam ne moom la wax ñëpp a ciy d'accord voilà loolu moo tax sénégalais yu baree bari nag lu nu ngootunoo bàyyi mbir mi ak politiciens yi ñu ci bari loolu la ñuy wax ah. politiciens yi kenn du leen bàyyeeg réew mi parce que ku leen bàyyeeg réew mi gis nga leen ay kat-kat la ñuy war wala fu leen neex la ñuy dem bàyyi nag askan bi wala lu ëpp ci askan bi di sonn. moo tax gars yi di fipp di son parce que mënuñ ñuy gis depuis 1960 xale yi am ay problème chaque jour jeunesse bi la ñuy wax gouvernement bu fi jaar ci jeunesse bi lay jaar waa xale yi ndaw ñi amuñu liggéey ndaw ñi dañ leen a war a jàppale waaye ña koy wax bu ñu toogee dafay mel ne du mais loolu tamit wax dëgg yàlla moo tax nag système bi moo tax gars yi naan système bi système bi loolu yëpp day dugg ci biir bi système bi njëkkee wut ci Macky Sall mi de système bi ma nga njëkk ca 1960 ba léegi voilà dafa agsi rek ci jamonoy Macky Sall fekk nit ñi yeewu nag ba jar voilà nit ñi nag bu yeewoo ba ni jar loolu du Macky Sall du yàlla moo ko def du Sénégal képp ñoo nekk fii ñu nekk réew yi ci baree baree baree bare avancement la ñuy ñaan ci seeni réew moo tax réew yi baree bare boo fa demee fi mu toll ni ndaw ñaa gën a yeewu mag parce que dañoo tombanteeg jamono WhatsApp toppanteeg génération doo euh, TikTok Instagram voilà yooyu plateforme nga xam fi mu toll nii daanaka mën naa ñu gën a yee yee at bu njëkk ñu bëree bëree bëri dawoo ko mën waaw information daw daw maanaam da daan jafe daal voilà mu ngi noonu kon daal yaakaar naa ni euh, war ngeen a xoolaat bu baax a baax a baax ndax dama wax ni man bu fekkee senegal moo ñu itteel yaakaar naa lii yépp di am manoon naa bañ a am pour man ci sama xalaat bu gàtt ndax bu fekkee am réew lañ jël teg ci kanam lépp loo xam ne waa réew ma soxla nañ ko yow yaa jiitu ci mbir mi yaakaar naa ne li waa réew mi bëgg yépp da ngeen cee war a da ngeen da ngeen leen koo war a defal voilà candidat yi nga xam ne ay ay lañ nekk ci réew mi di ay doomi Sénégal te réew bi rek itteel leen candidat yooyu yépp dañ leen war a bàyyi bokk ndax sénégalais yi nga xam ne nii Euh, yaakaar naa ne ñoo yor seen i carte dem di wote ji ñoom ñooy atte comme nen daan atte ci président yi fi jaroon ndax Abdou Diouf Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade Macky Sall sénégalais yi atte voilà sénégalais yi moom bu ñu attee jox ka leen doy boobaa nag aywa ñëpp ñu ànd defar réew bi mais nag euh, xale yi ngeen daan nax moom ak xale yi ngeen daan jaar ci seeni i kaw di jàll ak xale yi leen daan xale yi nga xam dañ leen daan bàyyi réew mi bokkut ak xale yi nga xam ni moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla dañoo bëgg jot ci dafa metti nag wax dëgg yàlla nga toll fenn fi euh, mënoo fexe fexe fexe wax dëgg yàlla ba am dara loo mën def da liggéey ba sonn loo am dara loolu dafa metti dafa am te ay jàmbaar lañ am voilà ay jàmbaar lañ am ay xale yu nangoo liggéey sax ay xale yu yaru lu leer laa leen wax ne voilà parce que euh, naar yi man daan dama daan waxtaan ak ñoom ci lu bari jeunes jeunes yi waaw naar yi ci baree baree bari duñ nangoo liggéey li tax ñu nangoo liggéey léegi sax sénégalais léegi sénégalais yi ñoo leen yee ci liggéey waaw ni ñuy liggéeyee ni ñuy xëyee ni ñuy wàcce loolu sax voilà euh, ñu baree bare bari xam nañ ko voilà te loolu tey euh, kon grâce ñu nuy jooy ci Sénégal lenn moo ñu volonté wu jël lépp teg ko ci ak dëgg ndax ak dëgg moom gis nga fa nu jëm ëllëg sax ak dëgg lay dugal sa ko àjjana la dëgg wér bu cub moo lay dugal àjjana mais du ay tàppalee koy ñu jaaj déedéet beneen bi ci des tamit moo di décret yeeg gis nga signature yi yëpp nit ñi def nañ ko de mais képp koo xam ne mos nga koo def heure boo faatoo da nga jàkkaarloo suñu borom indi lu leer nañ ci kanam voilà moo tax décret kenn du ko jaaxaan xam-xam kenn du ko am di ko fowee voilà am réew ñoo ko moom réew mi bu ñu bëggee mu avancé nañ jël ak dëgg rek teg ci kanam loolu képp moo mën a avancé réew mi mais du ay tappale du ay kase fii wala ay décret fii wala ay bind fii loolu day jeex. bis dina ñëw nga rëcc looroon jiitoo yow ci kanam ndax njiit lu doy waar la njiit njiit bëgg nañ ko mais njiit njiit lu garaaw la njiit njiit ñi nga jiite woon da nga wax lu leer nañ lu set picc lu leer da leen ko indi tegal leen ndoo demee noonu de njiit a doy waar njiit nit ñi nañ ko bëgge mais ak yi yéeme moom njiit voilà ndax ëllëg mënoo jéggi ba dem sa këru àjjana di bàyyi sa gaay yi déedéet mukk koy faaw nga lijjante ñoom ba xam dangaa yaakaar dañ leen jiital suñu borom dalaa teg rek ci bopp jaam ñi rek ngir yaa gën a muus wala yaa ëpp xam-xam ñëpp ngir dalaa teg foofu noonu rek yow ngay moos ak bu gundaa ndaa ak yi ci yaakaar na lii moom fii rek la yem ci àdduna àllaaxira kër neex yooyu bala nga da nga wax lu leer nañu la suñu borom tege woon ci kanamu nit ñi voilà kum mën a doon ak loo mën a jiite jiit nekkul loo xam dana yaa jiite nit ñi nii rek ngir gën a muus nit ñi yàlla moo la fi teg di xool ba xam yow seen diggante ak moom ëllëg nan ngay doxalee jàmm ñi voilà loolu faaw ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax kon voilà euh, moo tax nag euh, kon sénégalais yi daal ñu ngi wéy rek di may nopp fële nga xam ne euh, fa la àttekat yi nekk di càmbar candidat yeeg wala ñu war a jàll ak yëpp voilà sénégalais yi tamit ñu ngi dégg seen nopp di leen réew mi nag sunum réew la yaakaar naa ne moom ñu ngi avancé ñu ngi dox booloo nañ bokk nañ ndey bokk bàyyi ña ngay xàccandoo di dóorandoo muy seeni réew ngir avancement dem ca kanam ko xam xam ko ko xamul nag wala mu noonu kon nag sénégalais yi ngeen jiite gënu leen leen moos de voilà yàlla dogal rek ngeen jiite leen mais ñu muus la ñu yow voilà ñu ngi bàyyi xel nag politique bu njëkk ba nag politique bu léegi bii dafa wuute tey boo rek jéem a def nii loolu képp mooy li la mën a dimbali ak yëpp la partout daal moom naa ah. réew mu la ci gën a jub gën laa jubal réew moom moo lay gën a avancé mais réew ci gën a dëngal bàyyi saw askan ñuy sonn ko tuumaraan du ñu dem fenn waaw dañuy naxante waaye du ñu dem fenn voilà. kon loolu yaakaar naa ne nekk na li nga xam ni moom leen doon indil ci actualité beneen bi ci des tamit moo di ku nekk xam ne ni euh, kaan bi ma ko cee bañ a ñàkk njàmbaas ndax euh, sport moom euh, faaw rek ñu koy jàllale wale mooy kaan bi ba léegi ñu ngi wéy di am voilà équipe yi tamit ñu ngi wéy di football voilà gis nañ Mourabitoune yi tamit voilà ñoom Mauritanie Mauritanie wax dëgg yàlla malheureusement voilà gis nga ko ñoom it euh, ñàkk nañ ci kanamu Angola kon jàppoon naa ne sax Mauritanie dañu dóor Angola pour génn dem yoon waaye nag euh, waa Sinim waa Nouadhibou voilà keroog Mouhamed mi ngi naan waaye yow Maroc ak Mauritanie kan nga ciy faral man de Maroc laay faral da nga leen di bàyyi waaw mu ne am ah, Mauritanie samay waay nekk Nouadhibou macha allah euh, di ay naar yu baax wax dëgg yàlla di ay naar yu laabit nekk fële ci Nouadhibou voilà mais Mauritanie ñu ngi leen di félicité football moom noonu la. voilà benn équipe donc moo koy jël cote voilà euh, beneen bi ci des tamit moo di ku nekk xam ne Algérie ak euh, Burkina Faso ñoom dañoo nii deux deux lañ def waaw gis nañ tamit match Tunisie bi ak euh, Ghana yaakaar naa ne match astafurla match Tunisie bi ak Mali yaakaar naa ne match bu neex lay doon voilà kon nag yaakaar naa ne lii nekkoon na li nga xam ne ni moom lañ leen fay indil xanaa rek di fàttali suñ bopp rek di fàttali rek adduna bi ñu nekk xam ni kenn du fi sax. gis nga suñu borom chaque jour rek bis bu yàlla sàkk rek mi ngi wane boppam ci doomu aadama yi waaye ndax ñu ngi koy gis ndax gis nga tey ki wàccati euh, ki wàcc ki ki génnati àdduna tey mooy euh, wax dëgg yàlla soxna kenn jaaga euh, di soxna coon sekk di yaay ci wàlli sekk gis ngeen ko muy koo xam ne yaakaar naa ni ko ñu mel nii bu ñu génnee àdduna nit ñi dañ koy xam nit ñi dañ koy yëg yàlla leen ko dara jaar yàlla leen ko xam walla baaxe Euh, kon chaque jour rek saa su nekk gis nga de ñuy wàcc ñëpp rek ñu jàpp ne ñun dañuy dund rek di dem déedéet kenn ku ci nekk jàppal na bis bu yàlla sàkk xamal ni saa soo xëyee sa benn tànk mi ngi ci àdduna benn tànk baa ngi bar sàq waaye gis nga ko voilà chaque jour rek mu leen di tegal ay preuve yoo xam ne di leen wan leen dee leen àtte ci li nga xam ne moom ngeen war a àtte muy xam-xam bi ngeen jàng yam ci kot dee leen jubal bàyyi leen jaayeen doole bi bisa ngi ñëw de ah dee moom du tàggoo voilà gis nga ko kon nag wax dëgg yàlla Wally Seck ñu ngi lay jaale sa yaay yooyu di ko jaale sénégalais yëpp rek di wax ne àdduna nii la Sénégal ñun ñëpp ay sénégalais lañ voilà àdduna moom dañ fay ñëw rek pour mission mission bi moom matee da ngay dellu yéen mënuñ ci dara waaw kan 94 Walf Sénégal ah, lii la leen indil